mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy farataal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di baaxoo di déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur Cheikh Seck nekk kinésithérapeute fii ci hôpital Idrissa Pouye ex CTO waaye tamit nekk secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé docteur Seck ñu ngi lay wax merci beaucoup ci vraiment disponibilité ak sa OFT waaye laata loolu xanaa rek di la wax euh, dalak ak ci rajo Rewmi FM. jërëjëf euh, Fatou maa ngi lay nuyu di nuyu say auditeur waa Rewmi FM yi nii déglu ak ñi ni suivre à travers euh, les réseaux mm-hmm. di nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi liggéey ci kër docteur di leen masawu coono. di nuyu aussi képp koo xam ne aussi euh, travailleur nga en général parce que boo nee syndicaliste rek euh, euh, ci jëm ci défendre intérêt travailleur donc ak fu nu mënti nekk aussi ak jafe-jafe yi ñuy toll maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu aussi les responsables du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social nga xam ni ñoom ñoo ma wóolu ba jiital ma mais aussi ci cadre bu bees bi nga xam ne créé nañ ko muy di fédération des syndicats de la santé mu dajale lu toll ci juróom benn organisation syndicale yoo xam ne ñu ngi ci secteur santé ak action sociale bon xëy na sax mën na gën a yaatu parce que démb rek am na yeneen euh, ñaari organisation yoo xam ni saisir nañ ñu bi ñu déggee mbir mi donc bëgg cee bokk te donc c'est pas fermé donc dinañ mën a lépp ñu mën a xool ñu ngi koy mën a euh, defee ba mën koo mën ko kii donc à travers euh, li ñuy wax maa ngi nuyu waa fédération des syndicats. de la santé ak syndicat yi nga xam ne yëpp bokk nañ ci muy euh, Sintras bi camarade euh, Souleymane Joseph Mané jiite muy euh, sat santé bi nga xam ne camarade Arona Diop moo ko jiite ak Citra Citracol Citracol mooy syndicat des travailleurs des collectivités locale section santé bi nga xam ni Bamba Diop moo ko jiite ak syndicat yi nga xam ni moo dajale chauffeurs yi maanaam ambulanciers yi ak ñëpp ñi nga xam ni chauffeur lañ ci biir euh, secteur santé beeg affaire yu demee noonu nga xam ne mm-hmm. président Ndiouma moo ko moo ko jiite mm-hmm. donc ni nuyu aussi yenn camarades yëpp ñi nga xam ni ñu ngi ñuy jàppale mm-hmm. waaw mm, li tax nag ñu taxawal euh, cadre boobu mu di cadre euh, fédération dafa nekk loo xam ni demande la demande forte loo xam ni mooy militant yi parce que ñun ñëpp ñu ngi liggéey ci structure sanitaire yi te boo demee ci hôpital bu nekk pratiquement di nga fa fekk ñeent ba juróomi syndicat yoo xam ne ña nga fa mm-hmm. ku ci nekk aussi am nga say problème yoo xam ne dañ la spécifique mais am na yeneen problème yoo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokkandoo parce que mm-hmm. ñoo bokk kër gi ni liggéeyee ñoo bokk même corps yi xam nga donc jafe-jafe yi ni jànkontol la ñoo ko daje ñoo ko mm-hmm. booloon ñu gis ni syndicat yooyu yëpp ku ci nekk déposé woon nga plateforme revendicative ku ci nekk aussi euh, dépose nga préavis de grève da nga gis tey jii ñii grève bu nu toogaatee ay ay ay fan ñeneen grévaat wala ñeneen def ay action bi ñu toogee ñu ne waaw mais pourquoi ñun ñu toog tey jii boo gëree plateforme revendicative yi nga xam ne moom la ñu teg à plus de quatre-vingt pour cent ñoo bokk li ñuy wax ñoo bokk mem problème yi donc ñoo bokk même revendication yi te pratiquement proposition solution yi ñun ñoo ko bokk ñe leen kon mën nañu fédérer suñuy suñuy force fédérer suñu force mooy dajale syndicat yooyu yëpp ñu bokk ci benn cadre mais nag du tere ku ci nekk am nga sa autonomie am nga sa indépendance parce que mhm. bu ñu nee fédéré da ngay boole mais ku ci nekk am nga sa autonomie ak indépendance loolu nag taxawal nañ ko mais dafa am ñaari secrétaire généraux yoo xam ni mhm. ñi ngi ci biir mais dañu voyager mhm. te kenn ki à l'étranger la nekk kenn ki sax il est à l'intérieur pays mais dina rentrer ci week-end bi donc xam nga booy lancer ay mbir il faut que ñooñu ñëpp aussi mën a teew moo tax lancer nañ ko Eh, dinañ def benn assemblée générale bu mag boo xam ni genre meeting lay doon wala genre point de presse bu ko defee eh, ñu way taskatu xabaar yëpp xëy na yéen vous avez la primeur. Mhm. <laughs> xëy na vous avez anticipé avant que loolu ñu koy lancé. parce que voilà exactement parce que lu nu waxoon ni balaa ñu koy def il faut que ñëpp taw boo ko defee ñu o presse bi yëpp. Mhm. donc euh, loolu mooy li nga xam ni moom leen décidé ci fédération bi quoi. ci fan yi rek yu néew euh, def naa début semaine prochaine incha allah dinañ ko lancé. par le biais d'une Euh, assemblée générale mm-hmm. wala benn point de presse bu ñuy def boo xam ne dañ ci invité journalistes yëpp ñu ñëw ñu ñëw teew mm-hmm. ne yéen am ngeen chance am la primeur mm-hmm. ci yu demee noonu quoi xëy na xariñte Fatou <laughs> faatu Baba la quoi <laughs> donc euh, comme ni ma ko waxee li tax ñu taxawal mbir mi euh, moo di euh, dañu gis ni plateforme revendicative yi nga xam ne gars yi def nañ ko yëpp lu ci ëpp pratiquement ñoo ko nurale ñu ne kon war nañoo dajaloo boole ko xam nga non seulement am na ñaari avantage avantage bi moo di euh, force yi euh, dina créer benn synergie parce que travailleurs yi ñoo ko demandé euh, leneen li aussi dina permettre à l'autorité mu mën a am Euh, benn interlocuteur comme je voulais je pourrais dire quoi donc du nekk di waxtaan ak ñi ëlbati di waxtaan ak ñeneen di waxtaan ak ñeneen xam nga mën a waxtaanandoo ñëpp en même temps quoi te loolu dina dina gaawal waxtaan yi mais ci mm-hmm. condition aussi que kilifa gi muy ministre de la santé muy ministre de la fonction publique muy ministre des collectivités locales ak yeneen ministère parce que revendication yi du revendication rek uniquement ci concerne uniquement ci li ñuy faj am na loo xam ni c'est transversal parce que tey jii am na comme li ma lay wax syndicat yoo xam ni c'est des travailleurs des collectivités territoriales ou locales tey jii boo xoolee centre de santé yu bëri sax maire yi ñoo leen géré boo mm-hmm. demee boo demee Wakaam boo demee euh, centre de santé Mame Abdou Aziz bu nekk parcelle boo demee centre de santé bu plateau donc pratiquement euh, ak poste de santé yu bëri Euh, maire yi ci boppam parce que la loi sur la décentralisation moom moo moom moo ko moo jël secteur mel ni santé wala éducation jox ko euh, maire yi donc loolu aussi day day day euh, day day day day baax loolu nga xam ne moo yore collectivité territoriale yi aussi mu mën ci mën ci impliqué wu mais am na leneen situation aussi yoo xam ne dafa concerné ñi nga xam ni li ñuy wax ay agents santé communautaire parce jii boo xoolee santé euh, toll nañ ci ñi liggéey ci kër docteur ak euh, service sociaux de base yi toll nañ ci ñaar fukki junni pratiquement ak juróom mais boo ci xoolee ñi nga xam ne ñoo nekk fonctionnaire nekk fonction publique ci huit mille la juróom-ñetti junni kon xam nga ne tey jii pour ne ñaar fukki junni mm-hmm. euh, euh, matul sax dix mille personnes yoo xam ne ñoo nekk ci fonctionnaire ça veut dire que tey jii am na presque presque euh, trente mille personnes yoo xam ni euh, euh, astaghfirullah ay plus de plus de quinze mille personnes yoo xam ni wala lu ko ëpp ñoo xam ne ñu ngi tey jii ci di liggéey ci genre contrat yoo xam ne soit ñenn ñi maire yi ñoo leen di fay yor leen ay salaire mm. am na ñoo xam ne am nañ chance am contrat à durée déterminée am na xam ne am nañ ay contrat à inter interdéterminée mais ñi ci ëpp ay contrat prestataire la ñuy doon. Mm-hmm. contrat prestation nag li mu li tax mu dangereux dafa di contrat boo xam ni euh, amul ci disposition code du travail amul ci disposition loi 61 33 portant statut général di fonctionnaire. Mm-hmm. donc contrat de prestation mënul lier ñaari nit. yoon mayewu ko. prestation mooy tey jii comme gardiennage ma ne tey damay signer contrat de prestation ak benn agence ou structure boo xam ne gardiennage la. ne moom moy recruter ay nitam moo leen di gérer donc amul lien de subordination ci contrat de prestation mais de plus en plus dañ ciy abusé wu parce que loolu forme d'exploitation bu ñuy def travailleurs yi la et chaque année da ngay gis ci structure par exemple bi ma nekk mooy hôpital Idrissa Pouye li fi nekk ci prestataire rek ne toll na ci ñetti téeméer ak benn mm-hmm. am na ñoo xam ne nee naa la depuis fukki at ñu ngi leen defal prestation chaque année ñu renouveler xam nga ki nga xam ni da koy defal da koy defal prestation amul cotisation sociale. Mm-hmm. amul système de couverture. donc du am retraite du am lenn te à tout moment mën nga ko dàq doo ko sax dàq. Mm-hmm. parce que boo ko signé contrat un an nga ni premier janvier lay commencé 31 décembre lay jeex mu en décembre jote nga ne ko contrat bi jeex na mais toogal xaar du ma ko renouveler. Mm-hmm. ça veut dire que ne ñooñu seen i contrat tey jii boo ko yóbbuwoon ci yoon dañ koy def li ñuy wax requalification loolu la disposition réglementaire en contrat à durée indéterminée parce que disposition loi ak règlement yi dafa ni su fekkee ni par exemple tey jii ni ñu signé nga ko contrat nga renouveler ko benn yoon rek waruloo ko renouveler beneen yoon dan ko war a considérer comme un contrat à durée indéterminée bu dee nit ki mi ngi liggéey donc ñun li ñuy li ñuy travailler moo di d'abord ñu fexe ba personnel boobu parce que tey jii boo demee ci poste santé fekk benn agent mu nekk infirmier bi. Mm. wala sage-femme bi ñu nekk ay fonctionnaire mais tout autour moom donc bu fekkee ne moo fay nekk liggéeyam du mën a egg pour liggéeyam egg il faut que mu am par exemple ambulance ba fa nekk il faut mu am chauffeur bu koy dawal donc am na ambulance yooyu ba fa nekk. am na dépositaire pharmacie koo xam ne moom moy dem jënd garab yi te moom mooy jaay garab yi. Mm. parce que du du infirmier wala sage mooy dem jaay garab boo demee ci biir bi sage-femme bi soxla na benn matron bu koy jàppale te loolu day jëm sax ba mu élargir ci cadre vaccination parce que tey jii boo nee tey jii ay feebar yu mel ni coqueluche diphtérie tétanos poliomyélite nga xam ne déggatoo leen parce que da nga am benn taux de couverture vaccinale boo xam ne atteindre au mois ay quatre vingt ba quatre vingt dix pour cent mais loolu benn nit mënu ko. donc tey ji boo demee ci zone nga xam ne ñoo gën a reculé Sénégal boo demee Matam nga dem Kédougou nga dem Tambacounda wala feneen ci poste de santé bokkul ak Dakar gi nga xam ni euh, poste bi. nit ki am na oto mën a déplacé wu donc du doon problème mais foofu da ngay gis ni village yi dafay soriwoo. par exemple nga am ay rayon d'action yoo xam ne dinañ def plus de trente kilomètres nga war a vacciner xale yooyu mais pour nga mën loolu il faut nga am équipe bu lay encadrer ngay ànd ak ñoom. Mm-hmm. il faut nga am logistique mais ñooñu di liggéey liggéey boobu aussi il faut ñu am statut. Mm-hmm. donc agent de santé communautaire yooyu ko defale woon waa éducation parce que éducation tolloon na ci situation mel nii ñu amoon déficit enseignant yoo xam ne tolloon nañ ci ay trente mille personnes. Mm-hmm. danoo xëy rek daal ne léegi ku ku am defem ñëwal rek ñu jël la def ñu la formation ñu yóbbu leen ñu jàngale mais bi leen yóbbee après moom lañ doon wax le corps des volontaires ak vacataires yi parce que ñu nekkoon ci enseignement mm-hmm. euh, secondaire bi euh, ñoom ñu ngi ci woon. Mm-hmm. comprendre bi ñu leen dajalee ñu def quatre ans da leen utal corps d'accueil revaloriser seen i seen i seen i année d'expérience dugal leen dans la fonction publique. Mm-hmm. ma yaakaar ni loolu ñu def noonu war nañ ko mën a def ci secteur de la santé d'autant plus que ñii fi nekk soxla nañ leen te ñu liggéey liggéey bu bu ayib parce que wax naa la résultat yu ñu am ci système de santé bi te ñoom ñoo ci joué rôle boobu muy agent de santé communautaire yi su ko defee ñun il y a de cela même dix ans ou quinze ans lu mel noonu réglé nañ ko fi ci suñu biir hôpital. Mm-hmm. parce que dañoo amoon déficit personnel infirmier d' état dañoo am huit cent agents mais ci huit cent agents lu fi amoon ci infirmier d' état quarante cinq la woon. boobu ñu xam ni jaadu ñu ne léegi na la ñuy def nan dem recruter mais bon la ñuy dem di recruter fii am na ay ñoo xam ne ay filles de salle lañu ay garçons de salle lañu ñenn ñi ay brancardiers lañu mais gis ku nekk rek par exemple gis nga ko dem jàng ba egg université am master am wala mu am mu am euh, maîtrise am wala licence am mais amul liggéey mais xam nga liggéey boo ko jox mu liggéey. bi ñu xoolee fii ma gis am na boo yu bëri yoo xam ni am na ñoo xam ne ñu ngi doon def brancardier mais amoon nañ bac. Mm-hmm. na ñu bëri ñu ngi doon nekk ay ay filles de salle. te amoon nañ brevet ak yooyu ñu ne bon est-ce que mënuñu organiser ñu def proposition boobu benn genre test de niveau ñu recruter ci ay nit signer convention ak école de formation yi ñu yóbbu leen ñenn ñu yóbbu leen ñu def formation infirmière ñenn ñu yóbbu leen def formation sage-femme ci noonu lañ ko defee ba formé nañ ci trente personnes yoo xam ni. Mhm. ci ay filles de salle lan garçon de salle ñenn ñi nekk nañ infirmier d'état ñenn ñi nekk sage femme am ci koo xam ne sax dépassé na cadre boobu parce que après defaat na concours ba nekk technicien supérieur actuellement mi ngi service des soins infirmiers te fille de salle la commencé woon. Mhm. ma yaakaar ne aussi euh, war nañu mën a def ci travail boobu. Mhm. def promotion interne promotion interne na serait que nit ki la mu manqué. parce que am na lu mu jot am parce que boo liggéey système de santé rek même boo jàngul am yenn diplôme yi rek le fait que ngay def routine bi rek. Mhm. ak di liggéey ci service rek dafay am loo xam ne aussi di nga ko mën a jàng. Mhm. ñu xool loolu lépp ñu potentialiser ko yokkal leen xam nga su ko defee non seulement di nga di nga revaloriser seen dignité. mais di nga leen permettre aussi ñu am stabilité. qui leur permettra d'éviter certaines situations parce que am situation yu bëri yoo xam ne mm-hmm. parce que ci poste de santé yi moo ci euh, district yi da nga ciy gis benn matron boo xam ne day def vingt ans. nga mm-hmm. koy fay trente mille francs te kooku guddi gu nekk da nga gis benn femme bu war a nekk en travail la nuit mu nekk premier part. Mm-hmm. douze heures de temps lay jiite xam nga doo mën a dem. matron ba fa lay fanaan ak moom bu xëyee suba bu amaa yeneen accouchement mu toogaat fa nga koy fay trente mille mais kooku boo ko dee def yaa ngi koy exposé te mu yor njaboot yori këram. ça veut dire que ëllëg malade mën naa ñëw mu arnaqué ko laaj ko xaalis piqûre ko piqûre boo xam ni du lu normal te gis nañ ko ci structure yi du du gaalu jaadu. Mm-hmm. mais c'est parce que situation kay nekk këram bàyyi këram bàyyi jëkkëram bàyyi njabootam pendant un mois nga koy jox trente mille trente mil mënul dara. Mm-hmm. donc ñooñu boo leen joxoon statut jox leen valeur bi ñu war a am leen permettre ñoom ëllëg. comme ba xam la dinañ mm-hmm. liggéey seen liggéey à tête reposée mm-hmm. et de façon mm-hmm. loolu mooy suñuy point de revendication yu ñu teg ak gouvernement etel mu jëm ci li nga xam ne moo di euh, structure yi parce que tey jii ku wax liggéey wax euh, formation gaa baax na te dañ koy rafetlu gis nañ ne temps yëpp pratiquement gis ngeen chef de l'État mi ngi wax ay hôpitaux yu ñuy construire mais dama ni bu fekkee ni fexe nga ba jël parce que def nañ ko Sédhiou def nañ ko Kaffrine defal nañ ko Touba euh, am na yeneen tamit yu fi jotoon mhm. te ñu ngi préparé ñu naan ay wërësooge ak affaire dama mhm. mais bi ma calculé rek na ci cent cinquante milliards mais man mënu maa concevoir nga ne yow di nga jël cent cinquante milliards nga def ko ci ciment béton ak fer te moment ba nga dabaxee ba pare nga dem inauguré hôpitaux yëpp hôpitaux yëpp ba nga ko inauguré après dañ ko tëj parce que amoo personnel mhm. xam nga loolu lu garaaw la cest à jënd naa oto mais aw ma chauffeur bu ko dawal oto boobu da nga koy gaar rek loolu mooy problème bi et loolu c'est dangereux mm-hmm. c'est-à-dire dañu xamul ñun ñan ñooy def planification dans le secteur de la santé loolu mooy problème ñan ñooy planifier on a comme l'impression gars yi marché moo leen gën a intéressé gis ngeen Covid mu ñëwee ne nañ dugal nañ fi cent cinq milliards mm-hmm. mais tey jii gën a bon matériel yi ñu jënd bi ñu ñëw di lancer sax dañ ne bon dañuy jënd matériel ay commerçant ñoo ko dem jënd ji loolu leer nañ ñi yoo xam ne Italie lañ ko jëndee mm-hmm. parce que amuloon procédure de passation des marchés matériel yu bëri bu ñu ko jëndee fii bu ñëwee dawul six mu yàqu c'est grave non jaarul non xam nga dafa am spécification technique parce que man soo ñëwee sama service yi ma nekk mu médecine physique mënoo ñëw nga dem jëndal ma ay ay ay appareil indil ma mhm. man maa lay wax type d'appareil bi ak spécification technique en même temps aussi dafa war am sécurité ci ki jaay c'est-à-dire ki lay dafay fekk ne moom am na service de maintenance ou en tout cas de suivi par rapport au matériel. Mm. mu am garantie. su ko defee bu gañee marché bi bu leenee matériel bi indil naa la ko fii ak un an wala deux ans bu paanee moom dina la fay wala mu remboursé la mais amul benn poursuite wala affaire dama noonu en même temps mënuma concevoir benn maladie ñu dugal ci cent cinq milliards te tey jii jafe-jafe ñu ci am. Mm-hmm. gis ngeen li xew Dantec toog nañ fi ay temps ñu ne la mammographie amu fa. alors que ñu ngi wax ay waxu cancer di a ak affaire dama noonu mhm. te loolu élément de diagnostic la mhm. ñu toog ñu ne la scanner benn scanner bu fa nekkoon dafa paan mhm. moment bi bi bi président di dem di inauguré ay hôpitaux Kédougou ak ay Kaffrine Dantec amuloon scanner c'est-à-dire ku sa ndigg euh, ku sa sër matul li olof di wax doo booti gàmb c'est-à-dire il faut améliorer d'abord l'existant d'autant plus que tey jii ku am malade boo koy référé Dantec nga ko yóbbu wala principal mais fexeel ba fa ñuy référé malade yi nga defar ko ba mu baax moo gën nga jël sim xaalis boobu yëpp dem yóbbu ko Touba wala Tivaouane wala wala wala Ourossogui nga defar ko. Mhm. ba pare amul lenn ba njëriñ la am tey Ourossogui boo demee ñi ne ñu ngi construire hôpital bees loolu la ñu wax. Mhm. vingt cinq milliards xaw ma vingt milliards. Mhm. alors que Ourossogui ñaari hôpitaux ña nga fa benn mi ngi Ourossogui benn mi ngi Matam. diggante Ourossogui ak Matam dix kilomètres la. hôpital Matam bi ñu ko inauguré léegi matul matul dix ans. waaw comment nga am ñaari hôpitaux. ñaari hôpitaux yooyu doxul ngay construire benn troisième hôpital dem nañ ba añaam la xaw ma dem construire fa un hôpital c' est la mm-hmm. même erreur la madame Elisabeth Diouf defoon. Mm-hmm. fii à Diamniadio ñu tabax benn hôpital fondation. Mm-hmm. ba mu quitté hôpital dafa dee. madame Ablaye Wade def ko fii à à Nene Ficha. parce que dégluwul technicien yi. damal nga xool ndaxam am na ne ca hôpital nga mais loolu moo am mooy li ma lay wax rek cest dire xam nga nit ñi dañuy dañuy xam nga dañuy naxaate. xaw ma dañuy def politique ngistal politique ngistal mooy lan. Mhm. ñëw ñu woo leen yéen journalistes ngeen yore seen seen film yooyu ñu wan leen ay appareils yoo xam ne nice na ngeen impressionné Sénégalais alors que ñun en tant que soignant du loolu moo ñu intéressé. Mhm. c' est pas ça c' est pas d' avoir des mat du matériel sophistiqué parce que matériel sophistiqué lan moo ko jiitu mooy ki nga xam ne mooy mooy kii faj am xam-xam d' abord. Mhm. am nekk am qualification d' abord mën a xam parce que sémiologie rek sur le plan clinique rek day kii nit feebar na parce que nit mën na ñëw am fièvre mën na am bopp buy metti mais feebar yi amee fièvre dama la jox ñetti feebar yoo xam ni xaw nañ nuroo mm-hmm. mais boo xamul sémiologie wala nga jàng doo ko mën a def diagnostic différentiel nit mën na ñëw di crise parce que tétanos la nit mën na ñëw di parce que méningite la neuropalie aussi dina crise loo mm-hmm. mais yow boo amul xam mën mënoo def malade bi ñëw di crise wala peut-être mu am problème traumatisme neurologique xam nga mm-hmm. quatre feebar yooyu ne mais yow en tant que clinicien avant ngay def examen paraclinique bi mais sur la base de diagnostic différentiel mën nga xam ndax kii tétanos la wala méningite la wala leneen boo amul loolu donc man a def élément yooyu ñoo jiitu ba pare donc former nit ki muy médecin muy infirmier muy sage-femme tey dalal jàmm man je dis c'est le plus grand scandale de l'histoire de notre pays en matière de santé mm dama defe woon ni bi professeur euh, professeur euh, baal monsieur oublier le nom euh, Touré mooy PCA bi président du conseil d' administration démissionné. Mm-hmm. dafa am lu mu waroon créer pour ni ñi xam ni kii lan moo tax mu démissionné. message la woon mais on les a pas on l'a pas entendu non décoté wuñ ko de bien au contraire dañu gën a aggraver même la situation parce que hôpital boobu boo xoolee tax ma ne la scandale la. hôpital boobu hôpital bu ngi gën a sophistiqué je ne parle pas du Sénégal mais de la sous-région boo fa duggee sax yow nga xam ne fii sur le plan architectural et mm. sur le plan de de de de ni mu demee nii bokkul ak yeneen hôpitaux yi mu nekk biir géejawaay ci banlieue mm-hmm. tey jii bu nit amee accident croisement Béthio waxuma la sax euh, marché Ndiarème wala wala feneen mais croisement Béthio malade bi da ngay obligé yenn ko ñëw indi ko CTO wala principal est-ce que vous pensez que ça le conseil d'administration a demandé à l'État mu jox leen subvention pour que activités yooyu nga xam ne mooy besoin population wu Guédiawaye mm-hmm. ak banlieue bi parce que buy desservir desservir Guédiawaye kese Kër Massar Pikine ak yooyu yëpp seen bopp yëmbal ak tout Fass Mbao exactement mm-hmm. mais mais defuñu loolu ay nit parce que dafa am ay groupe de lobbying sa pays la xamala moo ngan baal ma def mu politique mais lu gën a mooy man mii am na influence man Cheikh am naa influence bu ngand comprendre wax la jege naa président ni ko lii laa soxla président defal la ko loolu moo ñu ay nit xëy na jege nañ président kenn ki amoon na projet ci jëm li ñuy wax procréation euh, assistée mm-hmm. loolu dund nañ ko ñun ñëpp y a combien de fois bi ñuy nekk xale ñu gis ay famille yoo xam ne couple dund nañ yàlla mayu leen bant néew ma nag baaxul nit ko war naa def lu mu ko mën a am bant mais lu ko daan def dañ koy delloo yëpp ci yàlla nit seen dix ans quinze ans amul doom ñu xëy benn jour rek yàlla def mu am mu am. Mm-hmm. parce que yàlla ci ay kii maanaam moo def loolu. Mm-hmm. néew ma nag bu investir ci loolu. ci côté boobu. mais dama ni fu ñu jëlee un milliard cinq cent. loo xam ne tey jii am na activité yoo xam ne ku am dam dam mën te ñooñu ñoo ëpp maladie yooyu ñoo ëpp. Mm-hmm. loolu li mu touché bëriwul nga mën a jël un milliard cinq cent ne dama koy investir foofu ak ak bon greffe moelle osseuse néew ma baaxul mais mala ñi am maladie cancer du de de l'os bëri wuñu quoi par rapport ak ñi accidenté ñi ñi scooter yi di mbëkk ak yooyu te ñuy dee laa la wax nag mm-hmm. y a combien d'accidenté de scooter yuy dee fii ay trauma crânien ak lépp mm-hmm. mais dama ni bu ma jëloon xaalis man bu ma amoon dogal xaalis bu foofu laa koy jël def ko pour que service des urgences de l'orthopédie de la traumatologie de l'hôpital Dalal Jàmm mu dem mm-hmm. hôpital Dalal Jàmm à une certaine période n'avait pas même fait développer son service d'imagerie médicale et en face de l'hôpital benn ñëw créer fa benn unité d'imagerie médicale am. bu privé. demal hôpital Fann dafa amoon norme. Mhm. pour ouverture pharmacie. distance yi nga war a nekk ak fi nga ko war a nekk. je mhm. peux comprendre nga di pharmacie en face de l'hôpital mais pharmacie privée ñu autorisé ni tabaxal ko ci biir hôpital Fann. Mhm. vocation hôpital du jaay ay cantine du uti ay xaalis. yow nga tabax pharmacie privée ça veut dire que yaa ngi concurrencer la pharmacie même de l'hôpital non pharmacie hôpital bi mm-hmm. te pharmacie hôpital bi IB lay def produit accessible lay doon yu mën a nekk et c'est dangereux mm-hmm. est que comment on est en train d'orienter notre système et c'est la situation tout près mm-hmm. aujourd'hui on oriente l'argent ci ay programme de santé or que tey jii bu ma joxee dix mille francs ma jël rek jox ko ci benn maladie am na yeneen maladie yoo xam ne duñ dox mais je préfère prendre les dix mille francs boole maladie yëpp def mettre leen dans un cadre d'une prise en charge globale. Mhm. su ko defee dina mën a faj. mais xaalis bu bëree ci benn programme. je ne dis pas que ne peut-être bailleurs yi ñooy demee noonu mais tu devras être en mesure aujourd'hui xam nga am na benn benn conception bu benn femme daan def xëy na xaw ma yéen xale yi xam ngeen ko de benn dame bu daan wax ceewu Cissé Doucouré. une ancienne experte en décentralisation. Mm-hmm. moom moo njëkk a créé li bon ci laa ko mos moom ci moom. li ñuy wax grappe de mm-hmm. grappe de convergence. grappe de convergence. grappe de convergence c'est-à-dire j'ai peu d'argent j'ai peu de moyens mais je peux l'utiliser de façon efficiente. ok c'est-à-dire c'est defuñu grappe par exemple tey jii le chef de l'État bu ñëwoon cent cinquante milliards yooyu mu wax ne daf ko construire ay hôpitaux. bu ñëwoon man mii ne man par exemple je donne l' exemple de Ourossogui et de Matam. Mm-hmm. milliards yooyu mun na reconstruire man su ma ko doon xelal je lui dis man Cheikh man parce que administrateur bon en dehors de la physio que je i mm-hmm. je suis titulaire d'un troisième en administration et gestion des services de santé. cest à directeur d'un hôpital. Mm-hmm. je suis diplômé du CESAC depuis 2012. man en tant que gestionnaire hospitalier je dirais au président j'ai pas besoin. je n'ai besoin que pour chaque hôpital boobu Matam nga jox ma rek un milliard chaque année waxuma la bu dépasse cinq ans quatre ans laa la may quatre ans chaque année nga jox ma un milliard ma def ñaari hôpitaux yooyu des hôpitaux sous-régionaux nit ñi di jógee Mali di jógee Guinée di ñëw di fa faju si. comme comme day fonctionner correctement subvention rek la wax de. Mm-hmm. yokk subvention yokk ci un milliard rek. chaque mm-hmm. année waxuma la nga construire hôpital bees vingt milliards jox ma ko man et je leur lance le défi ñu def hôpital boobu hôpital boo xam ne mooy gën a baax sax hôpital principal bi man maa la wax léegi c'est un hôpital sous-régional parce que c'est frontalier avec le Mali et la Mauritanie nit ñi mën nañ joge ba Guinée a fa ñëw pour que yomb na loolu lañ doon wax parce que tey jii damay ñëw ñu ne am nañ xaalis mu ñuy xaalis dañ koy def ko ci benn côté non non indi xaalis dañu dajale ku nekk wax sa problème ñu def arbitrage mm-hmm. su ko defee lu ci nekk di nga ko mën a fonctionner de façon correcte loolu di produire parce que mosoo gis clinique bu tëj ki ubbi cabinet privé investissement propre la état dimbalewu ko mooy jël personnel am mooy lié bâtiment am wala mu tabax la boppam et pourtant du perte nan lañ mën a ñëw ci structure publique nga xam ne état mooy construire batiment bi yëpp lii lépp état moo ko def mhm. état mooy subventionné structure boobu mënul fonctionner correctement dañu nekk ci privé di correctement donc y a un problème management et de gestion mhm. su fekkee ne xaalis boobu ñëw na ñu façon efficiente pour pouvoir régler le problème mooy li nga xam ne moom moo moo gën a mu mel ni dañuy wax rek euh, politique de l'État waaye déglu naa la bu baax ci sa biir kàddu dafa mel ni on ne met pas les les les personnes qu'il faut à la place qu'il faut ba moom moo waral même si le plateau est là ressources humaines bi moom daanaka amul benn accompagnement comme ni nga ko waxee euh, la responsabilité te boo ko doon situé wu fan nga koy situé. responsabilité bi ma koy cité mooy c'est la politique politique mooy yàq Sénégal donc xam nga ki dugg ci administration xam na li nga fa duggee doo am complexe lenn rek moo la soxal mooy li administration tëral ñu koy def. Mm-hmm. mais depuis qu'on a commencé parce que bu njëkk bi fonction publique doo fa duggee hasard mais léegi tey jii demal ministère fonction publique demal ailleurs avant ils ont commencé par créer des agences. agence agences agences foofu la ñu commencé parasiter l'administration. administration ñen ñoo fi amoon pouvoir c'est les autorités administratives mhm. préfet yi mais léegi tey ji un politicien nga baal ma euh, qui soit le griot du président sans pro autant citer no nom il va dans une région il dit au préfet fais ce que ce, ce le préfet le fait alors c'est le contraire les gouverneurs avaient des pouvoirs les préfets avaient des pouvoirs waaw euh, bu njëkk dañ daan gis ni gouverneurs yi ak préfet yi mhm. dañ daan am pas pouvoir pour répresser mais ci boppam loo nekk nekk politicien dafa am yoon boo war a jaar mu jaar mais tey jii nekk fi politicien wala jege président moo gën a moo gën a am. te jii dans le système moo la tey jii dans les hôpitaux xam maa ngi ni bëri na ay cadre yu nekk ñoo xam ni avantage la am avantage moo di lan mooy non seulement c'était des agents du secteur de la santé ba pare dem jàngi management ak gestion tey jii boo demee enseignement munoo dem ci lycée. nga fekk fa proviseur. Mm-hmm. wala censeur boo xam ne nekkuloon enseignant. santé rek ngay ñëw ñu jël benn nit boo xam ni bon soit ingénieur agronome la woon wala mu nekkoon instituteur wala mu nekk leneen ñu xëy na ma le chef de service éducation pour la santé wala ñu jël benn journaliste na ma ko chef de service éducation pour la santé. Mm-hmm. santé ngay ñëw ab nit demoon émigré Italie ñëw di tendance ak ministre Diouf Sarr Diouf Sarr jël ko nommé ko chef de service administratif teg ñu ay fan ñu nommé ko directeur hôpital Ziguinchor. Mm-hmm. te amuñu diplôme de gestion hospitalière te nekkuñu ay agent de santé alors que des gens sont là nekk ay agent de santé pare am diplôme yoo xam ne bu ñu demoon ba France. Mm-hmm. ba États-Unis ces diplômes là sont reconnus mais ka nga xam ne politique moo tax mu nekk fa c'est pas pour jeter leen des pierres wala lenn. Mm-hmm. c'est-à-dire kana jox service éducation pour la santé mu ne tey ma nga Mbàkke dafa bëgg mairie Mbàkke wala dafa bëgg lenn. lan moo ko ko mën a fal du ay militant mi nekk Mbàkke nan ko fale noonu du yaakaar ne noonu la war a jëlee ñeneen ñu utal leen ay emploi ka nga xam ni ma nga ca yoof di campagne lan lay amee nit bu leen utal emploi mais fan lañ leen utale emploi lu ci santé moo tax nga dugg suñu secteur bi ñun ici à l'hôpital on nous mm. affecte des dizaines d'agents yoo xam ni veste ak lañuy la sol du matin au nekk ci biiro climatisé yi tu vois climatiseur panne ça fait une semaine on demande ñu réparer réparer ko ñoom ñu ngi ay yoo xam ne ñu ngi demee noonu cest dire loolu moo indi le problème du secteur moo tax à chaque fois ces mêmes personnes ñoo nekk ci centre de décision yëpp. ci mhm. ministère yëpp léegi bu ñu ñëwee bu xaalis ñëwee xam nga la ñuy njëkk a demal au niveau du ministère la santé à huit heures doo am foo garer sa véhicule. Mhm. pourquoi ñëpp di daw. di foofu. boo waxee ñu ne la non fii amul prime amul indemnité man leen yéen ñëpp ngeen fi daw am na leen lu nekk ci suuf maa ngi tooñ sama benn waaye bu nekk dem ma ne ko budget bi saa yu ñëwee lu ngeen di njëkk def moo di planifier mhm. mission te jii fin d'année bi nii directeur yu bëri ñu ngi France mhm. def fa quinze jours ay frais de mission yoo xam ni par exemple ay millions la parce que xam nga baax li ma mm-hmm. soo demee fee aussi dañ naan bon benn programme au lieu liggéey ñu ne noonu dañuy def enquête programme yi pour jours ñu lay fay ay cinquante mille francs par jour te parrain saa sax doo dem kenn ngay neexal mu jox la données nga jël données yi ñëw fii ñëw joxe ko loolu moo fi am. et les gens sont là à s'enrichir sur notre dos au détriment des malades finalement li ñu war a investir ci ci malade yi investir ko ci malade yi loolu moo am suñu système de santé bi. parce que ñan ko jox ay politiciens kese kese kese kese kese lanu te man li ma ci naqari moo di dama leen xam man maa ngi système bi léegi ëpp na vingt ans gis nga ñeen nekkoon fii au temps de Abdou Diouf les mêmes personnes. ñoo ministre bu ñëw ñu changé veste soit ñu créé mouvement de soutien Diouf Sarr ñi ànd ak moom ñëpp gis naa leen ñu ànd ak au ab de Ablaye gis naa leen ñu daan yuuxu au temps de Abdou Diouf. Mm-hmm. li ma lay wax du caaxaan. au temps de Bodou Diagne Fada benn jour maa ngi koy wax Modou Diagne Fada lan moo tax mu daanu politiquement c'est-à-dire koo ci jàppale ba amal ko poste heure boo daanoo yow mu dem ci keneen parce que xam na ni ci noonu la amee poste. Mm-hmm. Fada nan la wax ma dama daan gis ñu daan ànd ak moom benn jour wala la benn anecdote dañu mës a ñëw bi Fada wàcce am na koo xam ne chef de cabinet am la woon man ma li ma lay wax du caaxaan. Mm-hmm. am na sax ku ma wax ni ci bu muy takk jabar Fada joxoon na ko un million xaw ma affaire dama noonu xaw ma ci preuve nag quoi mais gis nga bi faada daanoo fekk ñu am benn jour benn euh, audience bu nu amoon waroon am ak mi Touré Mimi Touré laa la wax de mi ngi dëkk côté euh, côté assemblée nationale bon xaw ma taxu na am mm-hmm. ñu war fa dem man ma egsi ak sunu délégation jour ba sax bon pour ne pas le citer tasante naa ay Kouthia muy génne foofu quoi. Mm-hmm. bu ñu duggee ci biir. benn gars yi accueillir ñu quoi bu ñuy accueillir c'est lui-même qui qui nous waaj xamee xàmmee naa kanam gi quoi mais mosuma yaakaar foofu quoi maa ngi xool. exactement quoi non parce que mu yaakaaruma ko woon foofu quoi. toog naa presque quinze minutes di wax waa ji fan laa ko war a xamee te moom moo ñu installé. après que je me te moom xam na sama tur sax ba wax ma quoi. Mm-hmm. mais xalaatuma ko woon foofu. bi mu waxee j'ai dit non c'est extrêmement grave. Mm. je me suis rendu compte que c'était lui le chef de cabinet de Modou Diagne du moom kese. am na beneen non biir faada googu mm-hmm. am na keneen koo xam ne aussi député la à l'Assemblée nationale son mari est musicien du ma tudd tur di mm-hmm. nga xam ki ma war a wax temps ngi jàppale le président de la république ak affaire deme noonu pour wax rek que ce qui est dangereux même pour le système mm-hmm. nga écrasante majorité ñooñu indi heure bu ministre bi daanoo wala mu dem feneen ñu dem feneen fu nu laxasu pour l'écrasante dama nga laaj Modou Diagne Fada ñi àndoon ak moom ñëpp ñu ci bëri je ne parle pas de trahison parce que xam moo tax ñu tàqale ko mais ñun ñëpp sànge nañ fes c'est ça qui est pour ce pays là. Mm-hmm. tey jii ñi ànd ak Diouf Sarr di yuuxu ni heure bu Diouf Sarr daanu wo ah bu keneen ñëwaatee ñu dem lonku ko ànd ak moom mm-hmm. est ce que noonu la ñuy doxalee dëkk parce que ça qui fait avancer un pays ñun xëñ na bañ fii nekk amoon nañ sens au moins amoon na justice ci biir administration. mais tey jii yéen ñi ñaata ñoo fi jàng ba am seen doctorat di taxawaalu je pense que c'est normal du yoon dañu war am liggéey loolu mooy yoon maintenant pour revenir à nos moutons nga baal ma ci parenthèse boobu parce que donc pour revenir ci ci ci li doon wax sànq euh, dama gis ni ah actuellement euh, santé bi pour mu dox il faut impérativement qu'on revienne à l'orthodoxie Euh, donc pour wax li pour la situation comme ni nga ko mën a waxee. Mm-hmm. système bi bu fekkee bëgg nañ koo bëgg nañ koo doxal. nan def di xew dans certains pays à l'heure actuelle te jii boo deme ay pays yu mel ni comme ay Ghana Côte d'Ivoire même les post dañ koy mettre en compétition et dafa am secteur yoo xam ni c'est des secteurs de souveraineté mm-hmm. muy sécurité muy santé muy éducation muy justice kenn du ko politiser c'est dangereux cest à c'est des secteurs de sécurité laa la wax sécurité turam sécurité la muy armée muy police te am na loxom xam boo ci xasee bu dugal rek di créer des phénomènes de déstabilisation pour ce pays. Mm-hmm. muy santé la même chose parce que tey jii prise de décision la kay jël décision xamul luy priorité mën na mettre en péril la sécurité ou bien la santé des malades. Mm-hmm. c'est de la même manière que l'éducation la justice aussi parce que nit ki day am yaakaar ci justice. gis nga ñaari ñeenti piliers yooyu buñ ko stabiliser. Mhm. bàyyi kook citoyen yi kese dëkk bi du am benn problème te ñu arrêté bugg a jël politique def ko liggéey. Mhm. mënatoo sax yar say doom ku ci nekk yaakaar ne lépp dañ koy lijjanti dans ce pays là da ngay jàng ba am sa sa papa wala sa yaay yenu la jël këyit yi di wër ut fu mu la amee la loolu moo dul yoon. Mhm. soo amee compétence da nga war liggéey. te santé bi dafa bëri nga baal ma ci wax ji ay paradis. mais docteur doguma la sax euh, ci ci ci wàllu woowu ñu ngi jël ay ñoo xamante ne ay ingénieur agronome lañu comme ni nga ko waxee dugal ko ci wàllu wérgu yaram bi alors que certainement dafa am benn cursus boo xamante ne daf la war a jox euh, poste bi nga xamante ne moom nga mérité mais chaque fois aussi dañuy dégg ñu naan ay erreur médicale ay erreur médicale mais est-ce que loolu aussi tamit euh, am na ñu koy bañ nag ci nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci wàllum cour docteur des fois comme on dit am ñu ne la fii waroon jaare yàlla moo ko dogale nii mais le fait que tamit ñuy jël euh, ku ku jàng beneen jàng dugal ko ci le personnel de santé xamul sémiologie xamul dara ndax yi tamit des fois ñiy wax erreur médicale moo am ba yenn saay sax ñu ne amaana ma dañuy koy yóbbu devant la justice tiraay moo am ci ndax tamit du ko favoriser à un certain moment ñàkk tri bi waaw mooy loolu xam nga foo dem mooy li ma lay wax rek xam nga jàngu médecine la moo tax mu gudd mm-hmm. parce que ci doomu aadama jàng médecine li tax li ngay njëkk a def mooy buy buy ñëw même bu dee ci mbirum théorie la balaa ngay demee stage li lay njëkk a préparé mooy c'est la psychologie d'abord c'est-à-dire mën nañ toog trois mois quatre mois yoo xam ne lay jàngal lan mooy nit nan nga mën a mën a faje nit te sax doo ko laal nan nga mën a dalal xelam parce que loolu loo am importance la mm-hmm. loolu moo jiitu mais mooy li ma la wax rek xam nga tey jii su ma nee la hôpital bi am na huit cent agents ci huit cent agents yooyu ñu ci nekk fonctionnaire trois cent lan mm-hmm. di waat yeneen euh, quatre cent cinq cent yi pour lan la sur le plan de la qualification da ngay xool ñu ne la par exemple demal ci benn hôpital bu mel ni comme Dantec am na mille cent agents mm-hmm. bon les universitaires rek toll nañ ci presque deux cent personnes ñu ne la la fa nekk ci infirmier d'état laa la wax parce que kooku moom mooy poumon fonctionnement dans le structure mm-hmm. boo leen compté diplômé laa wax matuñu cent man dem naa enquête Abbas Ndao xaw ma nag changé na am déet à une certaine période on avait recruté Abbas Ndao amoon nañ presque ay deux fa nekkoon ci infirmier d'état sept la ñu woon juróom-ñaar waaw léegi bu fekkee juróom-ñaar la man ma nekk politicien ku ñëw rek ma solal la blouse moo tax pareen saa yi ngay dégg ay nit naan man damaa dem maternité sage-femme ba ma fa dafa ñàkk kersa dafa ñàkk parce que ku nekk ku dugg ci biir maternité rek sol sol blouse bu rose. Mm-hmm. da nga xàmmee kan mooy sage diplômé bi ak mm-hmm. nga kii politique nga xam ni saaga rek la xam nga bëgg ko utal liggéey yóbbu ko santé utal ko blouse la mu tàmmee saaga fële ak na ma noonu lay noonu lay fonctionner c'est pas la même chose que quelqu'un boo xam ni on t'a préparé a parler correctement avec les malades la vérité de manière formation mm-hmm. du question rek am xam-xam am humanisme la mm-hmm. xam nga am ngay temps ñuy dégg ñuy wax concept humaniser les soins humaniser mooy soin moo di tey nekk naa service des urgences je suis débordé mais ñu indil ma malade aw ma place de mais malade bu ex rek ma ne ko aw ma place demal uti feneen exactement dañ nañu même bu urgence ñëwee ñàkkul espace boo ko mën a tëddal ci civière ba lever urgence comprendre nga mhm. loolu mooy yoon. mais mënu ma nangu malade nga ñëw rek ñu la amul place du justification. xam nga loolu la moo koy indi. tey jii demal ci hôpitaux yi loolu dañ ko dénoncé soba tey. Mhm. ci hôpitaux yi nekk Sénégal yëpp à partir de 17h 18h doo fa fekk benn senior benn laa la wax de il pèse bien mes mots alors que quand en France hôpitaux yi fa gën a mag ba Val de Grâce professeur yi monte garde. Mhm. mais fii demal ci hôpitaux yi bon ñun dañu monter garde parce que ñun service de médecine physique la donc c' est pas un service d' donc non malade ñun ñoo koy planifier. Mm-hmm. mais demal dans les services où les gens doivent être de garde mais ñun ñoo fay nekk bien parce que c' est des étudiants qui sont en spécialisation. Mm-hmm. mais toujours des étudiants. deuxième des choses mooy nit ki nga xam ne tey jii da nga ñëw nga war a fanaan garde fii à l'hôpital la plupart du temps je pas ñëpp koy def. Mm-hmm. nga war a xëy le nga war examen wala nga xam ni le lendemain da nga war dem defi ci dans la nuit am na yenn urgence yoo xam ne bu la ko indilee nga xam ne kii boo ci commencé yow tu es da d' attendre la venue di professeur le lendemain matin pour une présentation di nga fa toog ba dix heures parfois tu ne veux pas prendre cette responsabilité doo ko bëgg jël danga naan malaa bi dem feneen parce que xam na ne boo ko xasee bo commencé daf lay sonal mhm. dama la wax rek ay facteur du ñëpp koy def donc il faut qu'on aille ñu delluwaat ci orthodoxie boobu. Mhm. orthodoxie boobu moo di lan mooy l'encadrement même des étudiants nga étudiant boo ko bëggee encadrer loo ko wóolu wóolu da ngay toog ci wetam. mais Sénégal da ngay gis dans l'encadrement ñu jël ay étudiants bàyyi leen responsabiliser au niveau des services quel soit leur niveau nag. Mhm. benn niveau bu ko permettre. et que bu ñu bëggee problème yi ngay wax nii ay erreurs médicales parfois day arrivé xam nga la moo koy indi. il arrive parfois charges yi parce que léegi pratiquement beaucoup de nos cadres ñu ngi ci ay yu bëri amatuñ temps pour encadrer même les étudiants. li mhm. ma la wax du caaxaan. Mhm. amul dégg nga bëri dem ñuy wax ay concours CAMES Sénégal toujours premier la doon jël mais gis résultat je ne dis loolu mooy raison. Mhm. ma tey ji xarmat bi métti na méttiwaay boo xam ni bon sama mbokk ñu baal ma quoi c'est pas pour les jeter des pierres wala loolu <laughs> mais doo ko li peut-être ñun on a on a mais ñu ci syndicalisme pare saa nga def ay réunion syndicale ak tournée yooyu yëpp aussi bon. exactement day day day day day day influencer. parce que aussi duma wax ñu ne ñi di épargne suñu bo mm-hmm. par exemple saa ñu nekk ci cadre yoo xam ni nekk ci réunion syndicale alors que waroon nañ toppatoo suñu maladie moment boobu. xam mm-hmm. nga ah, mën nañ ci jouer. Mm-hmm. moo tax ku ci nekk nañ delloowaat ci orthodoxie boobu nit ñi mën def seen liggéey donc encadrement boobu nga mën a def ci étudiant bi doo ko def étudiant bi par exemple day nekk day nekk en stage ñëw fanaan fi guddi. la sa yor nekk këram du am fit di ko yee yenn heures yi xam nga diggante maître ak son son truc. Hmm. parce que par exemple danaan arrivé ay étudiants ñu am situation mais xamuñu mais ki xamul na dem laajte ji même bu dee lu lu élémentaire la nga woo professeur yi wala nga woo le médecin senior mu déplacé wu ñëw ne mais yow li nga ma doon wooye quoi. xas la quoi. Mm-hmm. est ce que comprendre baale ma la. et pourtant ça on a vu xam nga barki def lii waroon a gérer quoi. Mm-hmm. mais beneen yoon boo ñëwee doo am fitu woo ko. déedéet da def blocage. da ngay essayer débrouiller wu boo essayer débrouiller wu nag mën nga cee defi daga. par exemple nga gis nit ñëw en urgence guddi ñu bindal ko ay garab la lendemain matin saf bi ñëw ñu changé ordonnance bi yëpp. si. mooy wax bi caaxaan. day gis ma laaj ñu la wax man dañ bind ordonnance léegi vingt cinq mille ordonnance boobu su ma gis ñu waat ñu xam ne beneen ordonnance vingt cinq mille teg la la ordonnance yi quoi mu bëri alors que nekk poosam mayu la ko indi. Mhm. di demee noonu moo moo mhm. mais heureusement même dans les services léegi gars yi am nañ nouvelle organisation mais loolu ci jour bi rek la yem. Mhm. tey jii malade même buñ ko waree opéré dinañ ko yob en staff. c'est-à-dire yi toog assistant yi ñëpp toog. mu wax ci malade bi avant ñu koy opérer. Mm-hmm. mais xam nga loolu bokkul ak urgence. urgence c'est le malade ki vient tout juste c'est une question de vie et de mort un malade qui vient la defal œdème aigu du poumon boo xamul ndax kii dyspnée respiratoire la ah wala wala œdème aigu du poumon la nga jaawatlee par exemple di ko chargé. mën nga koo mm-hmm. rey. Mm-hmm. parce que malade bi nga xam ne dafa am œdème mu chargé fees ci biir da ko war a évacuer dindi ko. mais boo gisee dyspnée bi rek parce que lu muy secret dafa metti xamoo li mu doon nga ni am désert nga remplir ko. yaa ngi yokk yaa ngi yokk mu mel ni ki am tension rek ñu ne tension bi day yokk ñu ne la mën dafa am tension rek nga jox ko au lieu nga jox garab bu wàcce tension nga jox ko garab ñu ne li garab tension rek nga jox ko ndekki tension bi dafa yokk xam nga boo ko joxaatee tension bu gën a yokk ah, exactement mm-hmm. yooyu ay facteur la ay éléments yoo xam ne je dis euh, il faut que ñun toogaat ñun ñu remettre en cause suñu bopp mm-hmm. man ma xaar journaliste di ma critiquer wala leen du ma xaar population bi di ma di wax c'est-à-dire li ma lay wax ne ñun duñ ko dund te dañ ko dénoncer. Mm-hmm. parce que tak tamit balaa ngay digle keneen mu sangu yaa wara a sangu ba pare yow sa wàllu bopp. Mm-hmm. te loolu ci ñun la war a commencer faire en sorte que chaque hôpital soo fa demee ne serait-ce que des services d'urgence am na urgence médicale. am na urgence chirurgicale. Mm-hmm. bu dee urgence médicale spécialité yi nga xam ne yëpp dinañ ko mën a soxla bu urgence amee ñu mën leen fa teg. Mm-hmm. muy ay senior. Mm-hmm. bu dee urgence chirurgicale ou bien trauma ortho au moins nga mën a am un médecin orthopédiste boo xam ni dina fanaan fii. au moins nga am un radiologue boo xam ne day fanaan parce que am urgence ñu ne la malade bi teg nañ ko médecin bi xool ba pare ñoo def ko bindal bindal scanner ñu ne nan woo ki war a def scanner bi parce que moo nekk astreinte loolu ar arnaque la. ci mhm. di astreinte amul. Mhm. astreinte mooy na may toog sama kër boo amee urgence ñu woo la mais diggante ngay ñëw sa kër avant ngay def rajo bi pour ñu établir diagnostic bi ma daal mënu fee dee. Mhm. lu ne mën na donc tey jii bu ñu defoon te loolu lu mën a réglé wu. c'est-à-dire question d'organisation la tey j'ai un service d'orthopédie où il y par exemple fii nii am na trois trois professeurs mm-hmm. assistant yi mat nañ quatre sans compter les médecins spécialistes donc mat nañ dix je m'organise je di bon yow yaay nekk de semaine en orthopédie waaw c'est-à-dire tu ne travailleras pas le jour d'accord mais chaque jour dans la semaine chaque cinq heures yaa ngi fi comme senior tu passes la nuit mm-hmm. boo wàccee suba nga dem ñibbi leneen liggéey ñeneen ñi def ko rajo je prends un technicien en rajo ma ne ko yow yaay fanaan semaine bi yëpp. Mhm. mais boutique bi doo liggéey. su ko defee su ma ñëwee urgence lu mu ñàng ñàng ñàng bu excès dina am un bu dee chirurgie orthopédique am un orthopédiste bu dee radiologue dinaa ko am. bu dee médecin anesthésie réanimation fi nga xam ne bu ne urgence dañ ko war a opérer malade dañ ko war a am ku ko nelawal. Mhm. daal ñett yooyu yëpp bu malade bi ñëwee du ma toog di woo téléphone pour ñooñu ñëw. te lu yomb réglé la. Mm-hmm. soo ko defee soxlawul sax ngay recruter ñeneen da nga leen fay teg wala su la neexee nga ne recruter naa ay agent yoo xam ne ñoom nii rek la ñuy def bu la neexee bu ñu xëyee suba dem xari seen mat fu mu leen neexee mm-hmm. mais chaque nuit ils sont Euh, docteur euh, Cheikh Seck mu mel ni tamit euh, si sa plaidoyer bokk na ci li nga xamante ne moom mooy ay indemnité de responsabilité soxal lépp lu jëm ci wàllu spécialisation gis nañ ne ñi dañuy am cent mille ñi deux cent mille ñi quatre cent cinquante mille te pourtant ci benn catégorie la foofu si tamit lan nga ñu ci mën a. waaw mooy mooy mooy mooy mooy li may wax rek. Mm. c'est-à-dire dysfonctionnement moo di moo di tey jii question de réseau la et de lobby. c'est-à-dire yow tox nañ la jox la xaalis rek nga ut say xarit ñëw séddale jox la ñeneen ñu toog alors que buñ toogoon ku nekk jox la la nga yelloo parce que baaraam sax euh, loxo sax tolloowul baaraam yi. Mm-hmm. duñu gis ci système bi bu nu ñëwee dafa am ñoo xam ne ils ont eu la chance euh, bokkoon ci benn amical parce boo demoon faculté de médecine ñi nga xam ne ñooy def odonto ñi nga xam ne ñooy def euh, pharmacie ak ñi nga xam ne ñooy def médecine ñoo bokk benn département. Mm-hmm. ñoo bokk benn faculté du moins mm. département yi mooy li ma la wax noonu donc dañ doon bokk bu ñu nekk ay étudiants am na ñoo xam ni ils sont sortis des écoles ay écoles d'état par exemple ENDSS. Mm. am na ñoo xam ni ils passent par voie de concours. à la fac peut-être dossier la mais fait non seulement tu as le niveau requis mais tu un concours pour y entrer mais yëpp ki dans le domaine de la de la médecine mais bokkuñu. Mm. par exemple ñun domaine bu ñu nekk yi muy domaine physiothérapie médecine normalement au niveau de la faculté waroon waroon am département de de physiothérapie. mais amu fa. tous ceux qui ont eu à faire la médecine physique ici au Sénégal suñ ko jàngee étranger lañ ko jàngee. wala ñu jaar fii au niveau de l'INDSS. comprendre baax na la. Hmm. ça ne signifie pas qu'ils sont plus efficaces xam nga gis nga dossier yi yëpp. Hmm, ah. médecin bu ci am malade mu am par exemple AVC. le neurologue il lève l'obstacle foofu la yem mais la paralysie mais moom du régler paralysie man la koy envoyé man maay gérer loolu. Mhm. comprendre nga donc yaakaaruma ne kooku ëpp na ma lu may def ci malade. Mhm. le pharmacien man dañuy bind garab ñu jox ko mu dem jaay ko ce que kii jaay garab man moom ëpp li may def man mii nga xam damay def réadaptation cardiaque damay damay jël neuro damay def rééducation damay def euh, la pédiatrie damay def trauma orthopédie. Mhm. est-ce que kay jaay garab moom mu moom mu ëpp maqaama man li muy def ci système bi ba kooku nga mën ko jox néew mu mérité wu ko nag j'ai dit agent de santé ak fu mu mën teg loo ko fay mérité na ko. Mhm. loo ko fay laa la wax mérité na ko mais man mënumaa gëm ni man pharmacien bi bi jaay garab bi jaay garab moom ma ëpp fop la muy def ba nga mën ko jox deux cent cinquante mille joxaat ko cent mille joxaat ko joxaat ko deux cent mil muy presque quatre cent cinquante mille xaw ma cinq cent mille en moins de dix ans alors que yeneen koor yi joxoo c'est-à-dire lan moo mën a expliquer loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. veut dire que am na ñoo xam ni peut-être bi ñuy bi ñuy séddale xaalis ñoom ñoo fa nekkoon ñu ne yaa ngi ni ñu ñu ne milliard parce que ñun nekkoon nañu en négociation au temps de de Boun Abdallah en tant que premier ministre mais ñu dem ba ci biir gars yi ne amoon nañu ne enveloppe de cinq milliards. parce que état bi enseignants yi doon kaas ñu yokkal leen seen indemnité de logement. indemnité de logement. sur la table cinq milliards gars yi xam ne cinq milliards bu ñu ko tasee ci agent de santé yëpp xëy na deux cent millions yi duñ ko am. Mm-hmm. ils sont allés discuter avec ces gens là en catimini gars yi jox leen parce que ñoom peut être ñoom ñoo yaakaar ni ñoom dong ñoo yor système bi. comprendre wax mm-hmm. looloo tax parce que seen nombre bëriwul woon moo tax ñu mën ci am deux cent mille. alors que peut-être bu ñu leen joxoon soixante quinze mille ñeneen ñi sax mun leen joxee ku nekk vingt cinq mille ku nekk dina ci si mhm. <laughs> comprendre nga fi may waxee. Mhm. mais lépp luñ jël rafetul nag quoi c'est pas du tout beau. moo tax ñun bu ñu créé suñu syndicat on a dit c'est un syndicat pas de corp man je n'aime pas le corporatisme. d'accord. c'est dangereux. Mhm. parce que aucun gars ne peut dire dans le système de santé à lui seul il peut traiter un malade. c'est comme vous tey jii yaa ngi enregistré boo demee sa technicien moo koy dagg mooy monté mooy def lépp. mais yow da non chaîne la dama lay wax santé. santé sax santé sax moo santé dama la moom moo ci gën a kii ci côté boobu. amul kenn ku xarañ même si tu es un professeur mu nekk on a eu des problèmes dans le passé avec avec avec un professeur ici mu ñëw duñu jéem a jaay par rapport à nos services bu koy jaay seen seen teg ne ko loolu mënu nekk. Mhm. man ko tey jii am na ku nekk fii c'est un professeur à mais xam nga ci lu mu am lu mu am lu mu am doctorat wala agrégation ci faj bëñ. faj bëñ. bëñ bëñ bëñ mu baaxul mais kay faj bëñ même bu agrégé woon bay egg fu mën a egg bu ñëwee fii man man soxlawuma ko fii parce que amul lu may njëriñ. daa amoo mm-hmm. service mënu ma indil dara. Mm-hmm. même brancardier bi ma yenul malade moom laa gën a soxla parce que moom mën na ma transporter malade. Mm-hmm. donc le problème ne pas a un niveau mais c'est la compétence bi nga am yow ci domaine bi ngay exercer mm-hmm. Euh, justement mënuñu wax euh, ci émission bi te duñu wax ci sa domaine tey nga nekk certes kinésithérapeute di def lépp jëm ci wàllum rééducation euh, secteur bi ngay bi nga bi nga nekk sa spécialisation comment est-ce que ça se porte seen effectif ak tamit comment est-ce que ça se porte de manière générale. li may wax rek c'est c'est au regret de le dire. loo xamul xamuloo ko c'est vrai que c'est un métier boo xam ni ci mujj yu nu xam ci secteur bi. d'ailleurs même le Sénégal a fait partie des premiers pays euh, yoo xam ni ñoom ñoo ubbi filière boobu dans le cadre la formation parce que nee naa leen boo demee dans les pays les plus développés boo demee ci faculté de médecine dafay am département yi ma la wax léegi muy muy odontostomato muy am euh, pharmacie mu am médecine mu am département de médecine physique ou de physiothérapie am département de soins infirmiers même infirmier sax par exemple da ngay dégg boo demee dans les pays européens dañoo am seen cursus de formation jusqu'au niveau du doctorat comme ça au début heureusement que des gens ont compris très tôt l'importance de la rééducation mm-hmm. ba introduire ko au Sénégal biñ ko introduire c'était un gars un tubaab bu ñëwoon fii mooy bi ñuy toog a créer le Sénat wala national d'appareillage il s'appelait Rigal mm-hmm. moom moo ko ci introduire fii dans le cadre la formation ñu def ko dans la sous-région ni ñu leen daan jógee Niger euh, nu mu tuddati Mali am nañu bëri fi leen laa formé dem nañ ba pays yooyu léegi raw nañu ci domaine bi ñu nekk parce que ñu ñu nekkal xamuñu importance boobu tey jii bu ma la waxee ñi nekk en activité au Sénégal par rapport mm-hmm. aux besoins mm-hmm. est-ce que mat nañ soixante dans le cadre public tey jii da ngay dem ay région entière yoo xam ne doo fa fekk benn physiothérapeute mm-hmm. ça veut dire que fa am AVC par exemple Kédougou tu es obligé dalee jusqu'à Tamba à deux cent kilomètres te mënoo fa dem di déplacé wu semaine bu nekk ñetti yoon. Mhm. boo demee Ourossogui benn nit dafa nekk muy Matam région bi yëpp nga dem nga dem nga dem nga dem bon Ziguinchor sax tane na parce que am na ñett kenn ki mi ngi hôpital de la paix kenn ki mi ngi hôpital silence. comprendre ma tey ji hôpitaux yu bees yi ubbi yëpp gis naa keroog président ubbi euh, ñu ñu inauguré hôpital Touba bi. j'ai vu euh, unité yi ñu def sax même en de médecine physique amagu ñu ñoo ñoo ko fi amoon te dafa yàqu. Mm-hmm. de prise en charge de grands brûlés xam nga brûlé bu lakkee. dafay am rétraction yooyu yëpp da koy def. Mm-hmm. yoo xam ne ay jets d'eau la yooyu man seen naa o keroog ci film yi waaye xëy na ñi xamuñu ko mm-hmm. service ba tëj nañ ko sa amul ki ne Kaffrine tëj na ubbi nañ ko hôpital ba mais amul Sédhiou amul. waaw lan la baaxee ngay construire mais li ko indi moo di lan man formateur la encadré am na boo yu bëri ñu leen encadré seen mémoire ak yooyu yëpp. Mm-hmm. mais nan nga mën a toogee depuis presque quatre ans ubbi wuloo concours pour formation ñooñu. Mm-hmm. tey jii section bi nu yor pour formation ñun bon c'est vrai que heureusement nous on avait déjà euh, am nañ activité yu ñuy def parce que peut-être en dehors de l'enseignement aussi dañuy dañuy liggéey ci hôpitaux yi. Mm-hmm. mais quatre ans ngi ni jàngale wuñu et pourtant président la république moo ne dafay créer trois cent mille emplois xam nga NDCS ñaata étudiants ñoo fa daan am par année huit cent étudiants. Mm-hmm. il y a quinze sections. il y vingt nationalités yoo xam ne daa ñoo fi di actuellement la fa nekk ci ay étudiants matuñu matuñu soixante. infirmier d'état ubbi na concours sage-femme ubbi na concours spécialité yi ma lay wax yëpp muy kinésie muy anesthésie réanimation muy euh, ophtalmo muy euh, odontostomato yooyu yëpp kenn ubbiwul. Mm-hmm. ma ñëw ci mbirum régime indemnitaire ak discrimination bi nga xam ni aussi am na ko mais c'est normal que boo demee noon def seen spécialisation nga jox ñu leen mais ñooy spécialisé war nga leen jox ñoom aussi. Mm-hmm. loolu ma wax ci leneen li gën a graaw loolu suñu diggante bi ñuy wax ni di am ci de la santé mais au niveau de la fonction publique nan nga mën a concevoir tey jii euh, néew ma mérité wu ko parce que toujours nit lu mu am rek wërsëgam la man du may ñaane kenn mm-hmm. policier bi bii nga jox ko indemnité de logement. Mm. gendarme bi doog génn nga jox ko indemnité nga xam ne mu de logement. enseignant bi nga jox indemnité de logement sax mérité nañ ko daal sama mbokk enseignant yi bañ ma mere comprendre nga je jox tuuti na ñu jox leen cent mille francs enseignant yi ne loolu dafa tuuti. Mm-hmm. parce que location Dakar dafa seer. yow agent de santé bi nga xam ne heure bu nekk minuit une heure ñu woo ko ne ko hôpital parce que urgence am na. Mm. nga ne doo ko jox indemnité de est-ce que yaakaar nga ni loolu. est-ce que yaakaar nga ni lu lu normal la lan moo mën a expliquer ñooñu ma tudd ñëpp nga jox leen indemnisation ba ñooñu ni la la nga ñu jox dafa tuuti parce que fii mënoo fi am pokos cent mille francs c'est vrai ñaari néeg mënoo ko am fii cent mille francs fii ci zone bii mënoo ko fi am kooku ne dafa tuuti alors que man mi ko amul man te ma am ay charge yu ëpp charge yi mu am. Mhm. parce que enseignant bi du fanaan école de. man dong maa ñëw di liggéey di fanaan. am service de nuit. donc donc kan moo gën a mérité ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jox ñu jox ko bien que ñoom mérité nañ ko donc loolu lépp c'est des problèmes benn bi jëm ci plan de carrière bi ma lay wax. Mhm. c'est-à-dire que discrimination boobu ñuy def bu indemnité ñëwee ñu fékkee ko ak groupe. Mhm. bu leen amee dañu dem bay bloqué ni seen i plan de carrière e c'est dangereux. Mhm. nee naa la pays sous région ñi ñu formé woon tey jii ñu ci bëri tey jii. def nañ seeni i troisième di am seeni i doctorat dans les domaines yi ma lay wax nii ah dem ay Belgique ak fu nekk ñun mënuñu ko am parce que ay nit ñoo taxaw ci boppam nangootuñu ubbi concours nangootu may ay bourse nangootu mel dara dara mm-hmm. finalement on est les derniers de la classe au niveau la sous-région mm-hmm. loolu baaxul c'est-à-dire en essayant même de faire cette chose tu penses que da ngay xeex ay nit mais tu en train di suufeel sa dëkk on était les leaders ici en matière de médecine mais gis nga fii ak 10 ans on sera les derniers parce que ñeneen ñi ñu ngi am ouverture dem di jàngi toog nañu fi ay temps ba ñuy wax ci problème mu litu cancer la Mauritanie doon def ñun Sénégal amuñu ko woon ba ñuy évacuer malade yi ko yóbbu Mauritanie parce que la Mauritanie a essayé de combler le gap et de dépasser ñun on essayé d'en de <laughs> malheureusement parce que boo ñëwee bu ñu joxee ministre politique bu politique boobu dee ñu indaat beneen politique politique boobu loolu rek ko intéressé. recommencement. je pense que fi mu toll nii ki fi nekk lan la fi liggéey ñu baal ma mhm. nekk ma pour kii kay mais politique rek lay liggéey la preuve mooy da koy bind le du la tontu da ngay demander audience du la faale mais su ma xëyul suba ma ne damay créer mouvement woo ko téléphone ne ko damaa bëgg ñëw nga recevoir ma dama non billaay day ñëw sax fekk si ma fii day ñëw fekk si ma fii laa la wax est-ce que vous pensez que ça c'est normal parce que on prend des personnes qui n'ont aucune culture de l'administration qui n'ont jamais des fonctionnaires pour purifier une administration il faut qu'on revienne à l'orthodoxie l'administration du caaxaan arrêtons de parachuter les personnes qui n'ont jamais été des agents de l'administration ñu ñuy tricher mm-hmm. nan dem jàngi ji nan dem uti seen lijaasa nan dem xam luy administration mm-hmm. administration boo xasee ba am billahi tey jii buñ la doon buñ la ci buñ la ci toqantelee ba nga kii avantage lu mu am am am bu desee lu dul nga nga nga doxal yoon da ngay doxal yoon te loolu moo ñu manqué dans la situation mm-hmm. donc bu nu buggee régler affaire yi nañu dellu si waat ci orthodoxie bi bu ñu bëggee akay poste bu mënti doon nañ ko metre en compétition. Mm-hmm. ñi am diplôme am compétence ñu jox leen ko ñaareel bi moo di plan de carrière yu nit ñi ñu ubbi concours yi nit ñi mën a dem formation. Mm-hmm. benn dem jàng ji parce que système moo soxla. ñetteel bi li nga xam ne mooy statut précaire yi nga xam ni prestataires yi am nañ ko ci structures sanitaires yi ak euh, nu mu tuddati euh, les contractuels ah ak ñi nga xam ne ñooy agent de santé communautaire yi ñu fexe ba nu dugal leen même bu dee fonction publique locale la wala fonction publique euh, hospitalière parce que aussi y a un am na beneen affaire aussi boo xam ni mooy statut du personnel mm-hmm. signé nañ ko depuis deux ans loolu moy permettre ñu harmoniser ce sera la fonction publique hospitalière loolu lépp ay ay ay yoo xam ne mën nañu absorber plus de vingt mille personnes te du coûter dara en terme d' argent à l' état. dire ñun lu ci nekk bu nalee absorber leen personnel boobu on a trouvé des solutions du état moom mooy yokkaat xaalis parce que état lu muy fay bu tëjee bu ne dañuy augmenter salaire état buy augmenter huit mille rek lay augmenter salaire. Mm-hmm. ñi ñi leen recruter ñoom ñooy ñoom ñooy employeur c'est-à-dire lu ci nekk ñun am nañu yoo xam ne yu la yoo xam ne li ñuy xalaat ni dañuy ut xaalis bu bees xam wax naa la sànq ñu régler problème mu de salle garçon de salle fi nekkoon ba def leen ay infirmier de la mm. même manière sur le plan incidence financière aujourd'hui si tu augmentes subvention mm. nga dem lu mel ni labo tey jii sunu labo wax naa ko en réunion de conseil d'administration li mu war a jouer rôle la war si xaalis indiwu ko mm-hmm. service bi barki dem lañ fi def réunion je les ai dit le potentiel du service on n'utilise que 40 pour cent am na loo xam ne bu ngeen ko joxee ci matériel bu ñuy am recette parce que nañ def fii ay recette par mois mm-hmm. man leen bu ngeen ñu ko indilee mën nañ leen defar recette quinze millions xam boo amee recette quinze millions di nga a loo fay salaire ñi ci des mm-hmm. loolu laa bëgg léegi bu ko defee boo mu neenal demal ci clinique yii lan moo tax ñu am xaalis santé dafa am xaalis mm-hmm. santé am na xaalis warul perte gisoo benn clinique bu tëj ils sont immensément riches moo tax léegi ñëpp ñu ngi daw di barki dem dama lay constat dama lay wax benn affaire barki dem am na ay boy yu nekkoon dans le privé direct la woon ñu recruter woon ils ont leur master en kinésie ñu recrutement dans la fonction publique genn wàll gi yëpp danoo dem pour ñu def seen engagement bi ñu demee def pour ay engagement ñu laajte salaire salaire mm-hmm. salaire u kiné au niveau la fonction publique sénégalaise mm-hmm. ça faisait tout juste deux cent et quelques mille te ñoom fa nu nekk xam ñaata la leen fay. Mhm. cinq cent mille. sans compter les autres avantages salaire non c'est très sérieux tout à fait am na benn wax maa ko maa maa leen convaincre woon ba ñu dem recruter nañ leen ñu ngi ci recrutement bi mujj bi mais mhm. demuñu parce que dama grand man damay dem ñu affecté ma ci àll boo fare dama fay salaire yu dee yii te man fii maa ngi fay te fii même bu dul loolu mën naa fi xar mat te mënu ma kii. c'est moi ce que ce que cela fait. yooyu yëpp. état bi mën ci tenir compte et que le président bu mu bu du ngistal du politique jënd naa avion bu quatre-vingts milliards tabax naa ay hôpitaux yu sophistiqués no c'est pas ça. Mm-hmm. wala maa ngi def ay TER ak BRT alors que nit ñi lekk ñu naanuñu. nga baal ma de déraper woon ci lu looloon soxla. xaalis bi ñuy jël nii di ko def ci ay TER ak BRT embouteillage yi di gën a yokk di nañ nañ jox nañu ñu lekk ñu utal xale yi emploi loolu moo gën. ñun de amoon nañ chance boobu yaakaaruma sama doom yi. am chance boobu. Euh, waxtaan wi am na solo docteur Cheikh Seck waaye dafa mel ni lu ñu cëral ci waxtu wi yegg nañ ca. waaw maa ngi leen di gërëm bi leen sant di rafetlu aussi euh, li ngeen wax parce que yéen aussi dama koy wax toujours yéen yéenay sunu kàddu mënu la egg yéen a ko fa mën a yeggal te waxuñu nag parce que dañu contre nit wala leen dafa di ñun bu ñu choisir métier bi kenn choisirul ko pour ñun ku nekk am na lu tax dans ta vie lu poussé comme ni nga defee journalisme. Mm-hmm. te doomu aadama yi rek nee naa la fi mu toll nii suñu buggoon xaalis rek tax ñoo jóg ñu ñu mën a suñuy activité bopp parce que yàgg nañ système bi te am nañ fi loo xam ne mën nañu permettre ñu mën a liggéeyal suñu bopp gagner dix fois plus que ce qu'on est en train de mm. mais dama ni man potentiel malade la potentiel malaat la nga yow en même temps suñuy parents amuñu moyen ñu ngi ci banlieue bi moo tax ñuy xeex lii ñuy xeex parce que ëllëg ñooñu bu ñu feebaree amuñu moyen ñu leen di évacuer di leen dugalee avion te ñooñu ñoo tax ñuy wax xeex bi ni xeex yëpp ñoo ñoo tax ñuy xeex c'est-à-dire dafa war a am justice ak équité. Mm-hmm. ci sécurité ak ci santé. ku feebar ah. Mm-hmm. du da ngay dëkk Grand Yoff jàkkaarloog Grand Yoff xam nga jege na la. Mm-hmm. réglé nga problème accessibilité géographique. mais bu ñu la dugalee biir Grand Yoff ñu ne la tey jii euh, bu ñu la waree cinq cent mille ngay fay te yoruloo ko accessibilité financier rek la te loolu lépp duñ ko war a réglé. loolu moo am mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi doon teewlu seen émission bii di SOS santé et Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy nekkoon ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen invité ci beneen émission.